bonjour cher euh, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média jërë ngeen jëf ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax on est là ici présent à Saint-Louis pour le grand festival le festival de jazz nga xam ni tarkal dootul festival boo xam ni euh, dañu koy wax kii lay xew wala fii lay xew ñëpp xam nañ ni ci Saint-Louis lay xewee jazzman yi nga xam ni ñoo gën a mag ci àdduna ñëpp fii daje ay groupe yu mag a mag a mag ngeen gis fi nga xam ni moom mooy Saint-Louis tey l groupe Futur Média daal di euh, indi benn arsenal bu doy waar yi nga ñoo nekk Dakar yëpp tey boo demee TFM fekkuloo fa dara dara dara ci almadi bi lépp mu ngi fii fi nga xam ni moom mooy Saint-Louis ah le euh, la région des Linguère la région des Signares ah Saint-Louis nga xam ni dëkku suñu maam Alaaji Golbert Diagne fii la Cheikhul Khadim ñëwoon euh, fii ci bureau ba ca Ndar waaye Serigne Babacar Sy Bakarek Daraman xam ngeen euh, fii mooy cosaanam donc Saint-Louis bu ñu fi ñëwee tey day nekk une fierté pour ñun suñu kër maam la ñu nekk may nuyu nag équipe bi nga xam ni moom la groupe Futur Média génne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku lim juum mënu kenn waaye ñëpp équipe bi nga xam ni yëpp yëpp yëpp ñoom ñoo nekk fii nga xam ni moom mooy Saint-Louis weekend start à biir fii ci biir Saint-Louis donc weekend start dinañ jël invité artistes yi nga xam ni ñoo nekk biir Saint-Louis dinañ jël ki nga xam ni bokk na ci organisateur yi nga xam ni ñoo organiser festival bu mag bi nga xam ni mooy festival de jazz waaye dinañ jël benn benn ay doomi ndar daal di waxtaan ak ñoom laataa loolu dafa am loo xam ni dafa nekk ci programme bi nga xam ni moom mooy weekend start dafa am loo xam ni moom mooy style bi nga xam mooy émission boobu nga xam ni mooy weekend start nga jël mag ñi fàttali leen li nga xam ni moo fi amoon démb jël xale yi jàngal leen ñu xam ni am na ay son yoo xam ni amoon na fi yu baree bare bare micro bi nag may waxee tey ah, ci kanam xam naa émission bi waaj a jeex dinaa leen wax <laughs> histoire micro bi nga xam ni tey moom laa tey di ko waxee loolu du ma ci waxagum léegi ca fin ba moom laa koy wax oh oh xaaral ma fóon micro bi ngeen xam après fin émission bi ma wax leen ban micro la. <laughs> noonu lañ koy commencé ak rétro ma wax mag ñi fàttali leen ah, jàngal xale yi ngeen xam rétro xam ngeen ni ah, Joyce ah, Joyce Sims xam ngeen ni wayoon na fi way wu rëy yoo xam ni coming to my life donc du ñu def dara lu dul wan leen premier clip rétro weekend sat ñëwaat ci plateau bi fii ci biir ndar ci kaw seen bi ngeen di xool li nga xam ni moom moo xew tey ndar weekend sat Joyce Sims way na coming to my life ay tonton mag Vamos. c'était Joy Sims ay Joy Sims coming to my life donc loolu xam ngeen ni euh, l'émission Weekend Start c'est ça rétro ñu leen di fàttali ñi nga xam ni vous êtes nostalgique dañ leen di fàttali li nga xam ne moo fi xewoon xale yi nga xam ne ñoo juddu vers les 92 93 nangam ak sangam donc ñooñu dañ leen di jàngal ngeen xam ne lii xewoon na fi rétro jazz la ñuy waxtaanee tey biir ndar la ñu nekk donc faw ñu xuus ci jazz bu baax a baax a baax les écoles la INCO bi nga xam ne moo nekk Dakar ak INCO bi nga xam ne moo nekk Waka dañuy waajal randonnée euh, benn euh, randonnée pédestre bu mag a mag a mag mais avant ma ciy avancé du ma wax kañ la du ma wax fan la du ma wax naka lay demee en tout cas inco yu yi nga xam moo ne Sénégal ñu ngi waajal randonnée bu mag a mag a mag mais dafa am lu may xaar bu yegg seegul mënumaa wax kañ lay xew fan lay xewee ban heure lay xew ak li ci war a xew yëpp inco yi les inco Waka ak inco Dakar mani ngeen woo ma ci suuf <laughs> ci kanam maa ngi ciy ñëw léegi ba tey waa ndar na ngeen def yéen a ci jàmm ndar ya ngi génn par kenn kenn yow ndar a ngi génn of mbay waxuma pëtindooy of mbay wan ma ndar nu mu mel wan ma ndar wan ma baax baax yi ndar wan ma waa gen ndar wan ma ñi nga xam ne ñoo dëkk pikin wan ma ñi dëkk fi nga xam ni moom mooy ca corniche ba wan ma ñi dëkk ndar gu ndaw wan ma ñi dëkk ndar gu mag wan ma ndar ndarangi ndarangi ndarangi ndarangi ndarangi ndarangi beneen clip rétro ba tey <laughs> ak Youssouma jigéen Ndoye e, Youssouma jigéen Ndour maanaam Youssouma ay ay ay ay petit Ndoye mi mbaa jekku woo ma ak Youssouma jigéen Ndour e, Youssou Ndour nag le 30 duma ci wax ci kanam ak kanam ñu avancé ci nànk King Fat Palace ak Youssouma jigéen soirée VIP soirée privée soirée des des des des grands hommes soirée ah soirée bu doy waar boo xam ni maa ngi ciy ñëw léegi ci kanam mais rétro ak kili bu Youssou Ndour ah kii euh, kii euh, kii <laughs> euh, without a smile wa waay without a smile nañ dem xooli kili bi te ñëwaat mënu ma ko prononcer mënu ko. <laughs> Fikiisa may naaw ku fi gis samay pe ku fi gis Thank merci beaucoup. duñ ma gëm duñ ma gëm su ma leen waxee dafa mën a way duñ ma gëm ay ca without a smile a smile <laughs> Youssouf ma jigéen yàlla na jàmmam yàgg ay ca festival de jazz ñu ngi fi biir ndar ana waa ndar maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a sama waa kër maam sama waa kër bàjjen sama waa kër ndijaay yéen ndar ndar yëpp maa ngi leen di kontaane boo demee ba corniche nga laajte ana ña fa sant ak kamara boo leen laajtee bu ñu la nee ngi nii nga leen ah seen mbokka nga fee taxaw ca place Faidherbe bu di wax <laughs> waxkat ba <laughs> sama bàjjen dafa ñëw fekk ma suñu kër ma toog mu ne ma yow euh, tu fais pas notre fierte ma ne ko lu tax bàjjen mu ne ma ñun ay saraxule lañ yow waroo fee nekk di wax ak di wër di ñaan di ñibbi ne ma waa Aba doo jox paas mu ñibbi ma jël cinquante mille jox ko mu ne ma waa kon ñaana <laughs> donc ndar maa ngi leen di kontaan bu baax am naa fi kër maam am naa fi ay mbokk am naa fi ay xarit yu bare bare bare bare bëri ay ca mu ngi noonu léegi nag Euh, du ma sori dama euh, du ma sori wax naa leen tey li ci xew yëpp tey dafa bari donc ci kanam dinañu yaatal wax li nga xam ni moom moo xew tey bokk na ci anniversaire u Lat Diop Dëggeen Mbaye mon ami mon jumeau mon frère Wally Ballago sekk foofu nga xam ni moom mooy ci Grand Théâtre léegi léegi rek waaye bokk na ci le mardi 30 avril li nga xam ni mooy xew ci King Fahd Palace ak le king di mbalax Youssou Madjiguène Ndour waaw kay mon président Youssou jigéen léegi rek dañu ciy ñëw ci kanam daal di waaye ba tey dañu delluwaat xool li nga xam ni moom mooy clip su ma nee fi ñuy demaat ci clip mooy dañuy dem xooli Suprême euh, NTM ñu dem xooli Na Benz tonton mag mu ngi may déglu suprême NTM na Benz yeah ajje <laughs> mu ngi noonu ah, suprême NTM mu ngi nii léegi nag eh, weekend start eh, gis nga waa kay waa ndara ngi génn nànk par nànk ñëw leen xaj ngeen fi ñëw leen toog ci suuf bu ma kenn fekk ci kaw seen bi toog leen ci suuf rek gis par kenn kenn bind leen seen tour jox ma ko ma may leen dédicace yéen ñëpp ajje samay caméraman xam nga dañ ma gàttee et dañuy euh, dañuy yàqaale askan parce que ku nekk booy seetaan weekend start wala nga seetaan ak la neex ci Abba ñi bëgg nañ Abba bëgg nañ abaat di def ay faute ñii daf leen di neex mais ñi bëgg nañ di xool li abaat di sañsey année of mbay <laughs> yaa ko tàmmal sénégalais yaa leen ko tàmm eh waa kay Youssou Ndour dafa génne album bu bees tax album international album bi nag euh, mu ngi tudd euh, euh, kii story album bi story la tudd way na ci Habib Faye way na ci Birima way na ci confession way na ci ay coono la way na ci eh, my child way na ci Makumba waaye wayaat na ci Salimata Youssou Ndour moom sama papa la mais war nañ koo laaj histoire am mook Salimata Youssou album bu mu génne waaye ci Salimata yow waaye lii jàmm la ayca nañu dem xool li nga xam moom mooy la band annonce euh, du 30 avril foofu nga xam mooy ci King Fat Palace wax naa la entrée bi 25000 la VIP bi 35000 la waaye bande annonce boobu lay boole bu bande annonce bi di jeex rek ngeen di am Wu-Tang Clan triomphe waa tonton mag foo ne <laughs> Bonne nouvelle pour les mélomanes, Youssou Ndour, la star planétaire, en soirée au King Fat Palace. Ce mardi avril, le King Fat Palace déroule le tapis rouge pour Youssou Youssou Ndour di leen woo ci soirée bu exceptionnelle la soirée VIP avec Youssou Ndour et les Super Étoiles après son spectacle en France Youssou est de retour à Dakar pour le avril le avril au King Fat Palace entrée 25 000 VIP ou le ou appelez au 33 869 91 le avril mardi veille fête du travail ma ngay am tëkking faat ak Youssouma Jigéen Ndour accompagné de son super étoile. di super étoile. dana na ma mbalax Youssou na ma way kon nag lii tuq su bënn gu sàngi riir ñu ne entrée mille francs VIP trente mille et eh, li neex na de pare leen le 30 avril ak Youssouma Jigéen Ndour accompagné de son super étoile ci Youssouma Jigéen Ndour. jamono yi ay ñaari boo yooyu nga xam ne ñoo yëngaloon réew mi li ah, sol lu ne di ko <laughs> di ko yóbbu ci ginnaaw eh, acce donc eh, noonu la ñuy doxalee amoon na ay yoo xam ni ce Dakar la ñu nekk dañu ma waroon fekk si fii Ndar mais xam naa ni mujjuwu ñu ñëw eh, <laughs> mujjuwu wuñu ñëw Ndar dafa sori Ndar dafa sori dina ci bokk ci les INCO mooy écoles yooyu nga xam ni mooy les écoles INCO Dakar ak INCO Waka nga xam ni dañuy def seen randonnée pédestre boo xam ni mu ngi am bus dimanche le 28 maanaam bu euh, bu suba euh, mu nekk ren euh, li nga xam ni moom mooy seen thème bokk na ci li nga xam moom la waxtaane waxtaanee pionnier pionnier pionnier Patmaika pionnier la ñuy waxtaanee donc ñu ngi jël foofu nga xam ne mooy suñu départ ca inco Waka bi nga xam ne moo ne Almadi di suñu arrivée moo nekk ca monument de la Renaissance 8h30 la ñuy départ. ñett ci ñëpp ñëw ñu ngi ciy invité ñëpp ñëpp ñëpp le dimanche 28 euh, avril la pour la première édition de leur randonnée pédestre dégg nga INCO yi nga xam ne ñoo ne fii ci biir Sénégal leer na nañ les écoles INCO Dakar INCO Waka rendez-vous dimanche suba 8h30 foofu ca INCO bi nga xam ni mooy waka bi ne Almadi 8h30 ñu départ daal di dem fi nga xam ni moom mooy euh, monument de la Renaissance moo nekk suñu terminus waaw kay léegi nag. avant may ñëw di waxtaan ci li nga xam ne mooy clip yi nga xam ni euh, moom mooy clip yu yu yu yu yu yu yu muy jóg yi yi mujjee génn maanaam euh, damay génn ci rétro yi ñëw ci li nga xam ni mooy nouveauté yi damay jël sama première invité Grand Fara Sall mu ñëw ñu waxtaan ci li nga xam ni moom mooy organisation bi nga xam ni euh, moom moo xew ci li nga xam ni moom mooy festival de jazz bi wax ñu pourquoi ak ba bii mooy ban édition waaye wax ñu organisation bi naka la demee grand maa ngi lay bu baax a baax. mais sëñ bi maa ngi lay ziar mbaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax a baax. rétro yi nga doon teg na nga ko déglu wala da nga fekkee wala dan la ko nettali. est-ce que xam nga benn affaire nag. mooy leen xaw ma ci dara de <laughs> gars yi dañ ñaam lii lañ programme rek ma ànd ñoom ci programme bi ah, gars yi lay dugg rek xanaa doo gis ma am prono euh, kii benn problème prononciation <laughs> dégg naa nga mun ma ko sax prononcer en anglais kon tonton mooy dem rek nga toog si tonton mooy def ay yëfam rek <laughs> nga toog si gannaawam ay ca grand frère ziar naa la ñu ngi lay delloo ziar mais am mbégte gis la tey maa la gën a kontaan ñëw fekk si waan Ndar maa la gën a kontaan naa ni ñiy seetaan ñëpp tey dëkk Ndar nekk bi Sénégal am nañu mbégte ah, yow it bi nga ñëwee festival bi def naa am nga fi mbégte lool fii sama kër maam la bilay Ndar sama kër maam la ah, kon kontaan nañu samay maam fii la ñu cosaanoo donc su ma ñëwee euh, ñëw ma fi comme gan dama mhm. ñibbisi nag na <laughs> alhamdulilah léegi nag euh, nga wax ñu euh, bii mooy ñaata édition ci li nga xam ni euh, moom mooy le grand festival de jazz. Euh, jërëjëf Abba ñu ngi si 27e édition festival international de jazz de Saint-Louis. Mm-hmm. maanaam bu doon xale tey ñu ni màgg na mat na sëy. Mm-hmm. mat na am doom. Mm-hmm. parce que am na ñaar fukki ak juróom-ñaar si ren. la commencé woon ba ren ñuy organiser festival international de jazz de Saint-Louis. léegi lu waraloon euh, ñu am initiative di créer benn festival bu mel nii. 93 bi ñuy organiser première édition festival jazz dafa am. ay initiateurs yu fi nekkoon maanaam ñu bokkoon centre culturel français le syndicat d'initiative bi nga xam ni mooy jiite hôtel yi ñoom ñu ni woon maanaam période mois de mai mois de mois creuse la événement du am hôtel yi duñu dund ñu ni nan lañuy fexe ba am benn événement bu nga xam ne danañu mën am hôtel yi ñu mën leen feesal nit ñi ñëw ñu créé woon benn événement bu tudd festival jazz parce que période bi bu daan am hôtel yi si bari dañuy mettre seen personnel en chômage technique parce que amatul woon client kenn du ñëw. ñu ni woon nag dina am événement bu nga xamante ni ci biir période boobu dana permettre Ndar dund balaa saison touristique bi du commencé waat. loolu moo doon initiative bu festival jazz. et dans en cela nag yàlla suturaal na nag muy dox ay mag amee woon ko ñu nekkoon fi ñu nekkoon ay xale yu ndaw chaise yi ngay gis ñun bi ñuy commencé dañ nekkoon ci ñi ko doon rangé. bu ñu paree bu ñu yeewoo suba ñu rangé la waat bokkaat. nekk si ay at ba yàlla suturaal ñu tey ñu bokk si ñi nga xamante ni ñi ngi koy jot donc loolu sutura yàlla la mais ngërëm aussi ñi nga xam ni mooy li nga xam ne ñoo initiateur yi mais événement bi dañ ko yoroon pour Saint-Louis rek mais mujj na nekk un événement mondial ndax mu nekk événement mondial moo parce que fi ñu toll nii mooy premier festival international de jazz en Afrique dans le monde mooy troisième festival de jazz dans le monde donc événement boobu dootul événement bu ndaw agenda culturel national boo demee Burkina Faso dañ lay wax FESPACO nga dem Côte d'Ivoire ñu wax la Mansa nga ñëw Sénégal ñu wax la FESNAC wax la festival de jazz de Saint-Louis wax la euh, comment ça s'appelle les biennales de Dakar donc si événement calendrier national boobu la bokk loolu mooy origine bi nga xam ni festival bi am na ko tey. allez loolu am na solo tey euh, ñu gis. organisation bi nga xam ni mooy xew ci euh, festival bi te ñun au Sénégal ñu noonu jaas mm-hmm. donc euh, yan xeetu musiciens ñoom ñooy daal di participer ci événement bi. waaw musiciens yi participer tous les grands noms de jazz. Mm. jaar nañ ci festival bi. mais man am nañ ñu may gis ñu bind ci seen tour euh, ni ko dañu war fi ñëw jouer te man wóoruma woon ndax ñooñ jazz lañuy def. jaar nañu ndax jaar nañu Sénégal wala jazz dañuy def. waaw mais loolu kay c'est évident xam nga jazz mooy musique bu nga xamante ni nit ñi. dañ koy déglu mais ñi siy déglu ñu si ëpp xamuñu li ñuy déglu sax jazz la. Ah, donc ça dépend si dimension bi ni nekk ak musiciens yi ngay nekk boo gisee Habib yàlla na ko yàlla xaraajana yéeg na si festival bi. Mm. premier album moom fii la ko inauguré si festival jazz bi. Mm-hmm. donc matul deux ans troisième année ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana ñooñu par exemple seen euh, seen gis-gis. ak seen li ñu amoon ci Eumeu Diaz xam nga ñëpp xamoon na ni li mu doon def yaakaar na ni mbalax la parce que Youssou Ndour la doon àndal mais au bout du compte nit ñi rendre nañu beneen facette ci li mu doon def moom. noonu ngay gisee les grands jazzman yi nga xam ni jaar nañ ci festival bi festival yi monde bi ngay gis sax ñi nga gis affiche yu mag yi nga gis ci biir dëkk bi ñu naan la Herbie Hancock jaar na fi ñu naan la Abla Ibrahim jaar na fi ñu naan la Moni Dibango jaar na fi te ban fii jaar seen i ndaw la woon tey fi tey ñi ngi wax Hervé am na tur xam nga. mi ngi fii la jaar ci festival de jazz bi y' a 15 ans derrière nous. am na solo y' a 15 ans derrière nous Hervé moo doon première concert am ñu yéeg ko mu nekk xale bu ndaw amee guitare am tey il fait le tour du monde donc jazz bi dafa am ñoo xamante ni daf leen révéler ci festival bi am na ñoo xamante ni aussi par exemple dañuy dem ba confirmer ñu indi leen ci festival bi. donc musiciens yi fi jaar macha allah yàlla suturaal nañu ñu nekk de grand nom donc tour jazz festival bi am na tour tey ci monde bi. ayca mu ngi noonu euh, fi nga daanelee mooy suñu papa Habib Faye moom léegi rek ci kanam dinañ ko rendre benn hommage mm-hmm. euh, ñu ngi koy euh, waat seen waa kër bu baax a baax a baax et puis di ko mastawuwaat toute la musique sénégalaise donc ñëpp mais dama fi gis ay Omar Pène ay Pape et Cheikh ay Carlou D ay Souleymane Faye ñooñu dañuy def jazz. waaw ñooñu defuñu mais seen i peut être am nañu ay morceaux de jazz. mais ñoom bokkuñu ci programme mu in bi. mais festival bi du programme in bi nga xamante ni mooy jazz man yi kese. dafa am ñu nga xamante ni festival bi day commencer 9h balaa minuit concert yi jeex. mais au delà des concerts dafay am des concerts off. maanaam festival bi dafa am ay groupe ay ay ñoom ci ñoo xam ne dañ leen di labelliser. ñii labelliser bu mel ni boobu nekk tennis club. bu mel ni hôtel Sindoni lu mel ni centre culturel tey boo demee tey di nga gis ni Ablaye Sissoko dina fa nekk ak ay groupe mhm. yu mel ni yeneen activités yi nga xam dina am dans la ville mhm. di nga am procession tey gis nga oto yu màggat di nga gis oto yu ancienne voiture yi gis nga leen waaw waaw yii xëy na voiture de yi fekk fekkul woon suñuy jamono ñun ay idée fekkul woon sunu jamono mais ngoon boo rombee ci biir dëkk bi di nga gis tribune bi ñuy teg fii dana gis boobu ñu am défilé bu rëy suba dina am tàkku saanu ndar bu rëy festival bi dafay nekk benn mobile de sensibilisation dafay nekk benn seetu bu nga xamante ni dañuy bëgg ñun ñi organiser festival bi ku si nekk nga si gis sa bopp ni si gisee sa bopp mooy su ma demee si foire artisanale bi danaa fa am objet bi ma bëgg su ma demee si foire commerciale bi danaa fa am lu ma bëgg mm-hmm. su ma ñëwee suñu biir quartier yi ñu am ay projection de film parce que les phénomènes d'émigration clandestine dañuy def sensibilisation des populations les phénomènes de la santé de la reproduction dañuy am benn partenariat ak ay jeunes yu xam ne dañuy def projection de film ñu dem ci quartier yi pour sensibiliser leen ci loolu sensibiliser leen sur la santé sexuelle et reproductive sensibiliser leen sur les drogues sensibiliser leen sur l'immigration clandestine parce que ndar am na histoire ci loolu mhm. yooyu mooy activités yi nga xamante ni mooy nekk autour du festival non obstant handicapé yi dañuy am programme bu nga xam ni chaque année dañuy am ay partenaire yoo xam dañuy jóge à l'étranger ñëw ànd ak moom muy àndi sport ñuy def activité de de de sport. donc pour vous dire que yooyu mooy activité yi nga xam ne day nekk autour du festival nga xam ni in bi mooy mobile bi mais au delà de in bi day am yeneen activité yi nga xam ne day nekk autour du festival. am na solo yéen ñi dëkk Ndar te am sama numéro fu ngeen nekk rek ci àdduna bind leen ma seen tur ma nuyu leen <laughs> ngeen jàll ci télévision Futurs Médias ay ci les collectionneurs yi nga xam ne ñoom ñooy def collection oto yi nga xam ni mooy ancien oto yi nga xam ni noonu lañ koy woowee maa ngi leen gis biig son excellence le président de la république doon leen dalal foofu nga xam ne mooy cappale ba donc euh, xam naa ni ñu ngi ci tegu ci yoon bi di ñëw léegi rek ñu war a yegg si biir Ndar donc am na solo lool lool lool lii mooy li waral ñu naan tey démb moo tax te tey moo tax ñu naan ëllëg donc démb faw ñu koy fàttaliku bu baax a baax a baax la xewoon démb ak la xewoon tey ban différence moo am ci organisation bi ak ci festival bi. mais la xewoon démb ñun dañuy jéem a rek perpétuer la tradition. ñi nekkoon démb di liggéey li mu doon liggéey démb ñu ñu nekkoon ay xale nekk seen suuf. ñoom ñu doon def li ñu doon def ñuy jàng si ñoom. na xam ñun peut-être mën nañu egg gu ñu fa ñu eggoon. yaakaar na ni danañ yóbbu festival bi ñun. fu ñu ko mën a eggale mhm. parce que les on passent mais les institutions demeurent. Mhm. ñun suñu wàll rek dañuy bay ci waar rawatina nag yàlla suturaal ñu nekk ay doomu ndar dëkk ci dëkk bi mhm. war fi am suñu partition bu ñu war a jouer partition boobu nag la ñuy jouer ni ñu ko war a jouer nag mooy li nga xamante ni mooy doxal dëkk bi ñu mu wax tiituru ndar parce que tey fi tey foo mën di tukki ci Sénégal foo taxawee rek boo nee Saint-Louis rek les gens vont te dire festival tey fi tey boo taxawoon Sénégal ni télévision les gens vont te dire Abba. Mm-hmm. foo demee si Sénégal ñu ne ah le Sénégal ñu le pays de El Hadj Diouf. Mm-hmm. nga bëgg ka nga bañ ka. Mm-hmm. donc ñoo ñu am na lu ñu fi def mais festival boobu nag tour la am bi ngay ñëw ndar xamoo ma woon. dëgg la xamoo woon président bi. mais festival bi moo la indi. donc lii am fii tey nga gis que boo demee da nga koy mën a nettali. dëgg la ñiy dagg seen billet d' avion depuis trois mois ñu ne hôtel yëpp fees na. donc objectif yi ñu amoon réussir na. ah c'est compliqué. yow bi ngay ñëw fii def naa est-ce yi am foo dëkk. dañ maa wut fu ñu ma xaj-xajal rek ma dëkk fa ndax hôtel yëpp dafa fees del del macha allah yëf yaa ngi dox bu baax a baax a baax mais tey euh, cette festival là ñaata jours lay def. festival bi ren cinq jours lay def. cinq jours lay def day commencé démb la commencé. démb la commencé dinañ dem incha allah ba le trente. ba lay jeex incha lan mooy xew ci tey suba ginnaaw suba ba le donc chaque soir. Mhm. comme démb li nga gis. mooy euh, ñaari concert am na démb tey incha allah ñaari concert dinañ am mhm. dinañ am Nasirus mhm. dinañ am euh, dinañ am Nasirus dinañ am euh, Manu Galo Manu Galo boo xamante ni day jógee Côte d'Ivoire ah. Nasirus Espagne lay jógee mhm. suba dinañ am orchestre national orchestre national dinañ am aussi Maria dinañ am aussi Nora Mint Mm-hmm. qui nous viendra de la Mauritanie. Okay. donc thème mu ren bi dafa am solo si ñun. lan la ñuy waxtaanee boo xoolee tey fi tey on rend hommage à la femme. Mmh. si les douze dix groupes yi nga xam ni war na nañu yéeg presque bu nu mënee xool six yi wala sept yëpp ay jigéen lañu. donc dañu bëgg delloo njukkal jigéen ñi. Mm-hmm. beneen bi aussi li si am solo am solo mooy festival bi nit ñi dañuy yaakaar ni suñu niwul grand nom ñëw na rek. Marcus Miller ñëw rek festival bi amul neexul. Mm. alors que cette aussi on a voulu la révélation. jël ñi nga xamante ni ñi ngi def jazz nit ñi xamuñu leen ñu fexe ba festival bi promouvoir leen génn leen. moo tax ñi ñëw démb seetaan si gis nañu group yi nga xamante ni da naan ah mais kii su ma ñëwul woon. loolu mooy am ngoon loolu mooy am suba mooy am gannaaw suba incha allah. am ñi nga xam ni ñoom ñoo ci. jàpp ñu bàyyi la nga sant leen gërëm leen ay partenaires ak ñi nga xam ni. ñoo ñi si jàpp bu baax a baax a baax ma bàyyi la nga waxaale ce mot de la fin. merci beaucoup ñi si jàpp moom mooy par exemple l' état du Sénégal. à mm-hmm. travers le président de la République. Mm-hmm. mais la commune de Saint-Louis. dafay baax parce que approprié nañu événement bi. Mm-hmm. le ministère de la culture mooy suñu ministère de tutelle ñoom aussi ñi ngi jàpp ci événement bi mais am nañu nag benn partenaire bu nga xam ne depuis 15 ans 17 ans. si sa démb daf may wax ni xanaa festival BICIS moo ko moom. dëgg la mais lu ay lu lu koy wolof yi dafa rek quoi euh, lu tëggul xaw ma nu mu koy waxee mais ñoom ñooy lépp. Mm-hmm, mm-hmm. parce que ren ak élection yi ni mu demee woon. amuñu woon possibilité pour ni festival bi élection yi dañ noroon fomm mais bi ñu leen gisee dañ ni buñ kenn fomm festival bi danañ ci ñëw te ñoom seen loxo mosul jóg ci festival bi depuis pour la relance du festival l'ambassade Euh, de Luxembourg gis ngeen leen démb groupe bi yeeg démb ñoom ñoo ko offrir festival bi euh, parade bi am tey dañ siy bokk pour wax la ni bari na ay partenaire beneen partenariat bi si am solo mooy yéen hmm. ñun tey sama waa ji ku baax groupe Futur Média groupe Futur Média suma jigéen ah kenn du moom ren moo doon nekk parrain wu festival bi hmm. donc jàpp na si ni si waroon jàppe njaga aussi comme on le yàqu yàq si dara. Mhm. seen bi ñu toog. Mhm. seenu group Futur Média la. ndeysaan ndeysaan. comprendre mhm. démb def nañu direct festival bi tey ñi ngi direct à Saint-Louis. donc partenariat boobu moom la ñu am depuis presque des années. ren nag ñu féddali partenariat bi yàlla suturaal nu aussi ñu def si lu nga xamante ni xëy na yéen Futur Média yéen a ngi seen bopp parce que yéen ay seetu askan bi. suñu amee événement international ngeen dugg si ñun aussi gis nañ suñu bopp si li dem def mooy am mbégte uh-huh. jàkkaarloo ak yow moo frère en tout cas maa ngi lay kontaanee grand frère mën nga toog euh, mu ngi noonu ñu ngi koy nuyu bu baax di kontaanaat ci moom encore une fois dama la bëgg yóbbante rek nga waxal ma waa euh, kontaan naa ci yow kontaan naa ci waa Ndar waaye kontaan naa ci Habib Ka léegi rek di xam lan moo tax ma ne kontaan naa ci Habib Ka yóbbante laay doxee daal di ñaanale clip bu yóbbante waaye balaa bi sekk est nga Habib mooy kan dama laa yóbbante ci Habib nga waxal ma ko lii xam nga waaye yóbbante Wally Ballago Seck Habib Ka day ñëw léegi Eh, waa Sénégal dinañ ko xam ginnaaw boobu su ko waa Ndar xamee ak waa groupe Futurs Médias nitu teraanga nit ku baax mu dalal ñu jox ñu ñuy lekk jox ñu ñuy naan ay eh, vraiment a Habib kenn du moom yóbbante ak Wally Ballago Seck acce yaa ngi koy toppatoo shibara shibibiribira shabalibira lena samto usanusadum Ah, dafa mujjee jeex ay ci <laughs> maa nga noonu am na solo c'est pour la première fois moom Wally Ballago Seck muy fête son anniversaire c'est pour la première fois première édition anniversaire Wally Ballago Seck anniversaire yu ñeneen la doon fête ay le 26 ay le 28 le 29 Wally fête na ba fête 1er donc c'est pour la première fois le 27 fekk anniversaire mu tombeek mu koy fête wax naa fu doomu ndar nekk mën nga maa envoyé SMS ma nuyu la kii di Fifi Ndiaye envoyé na SMS waaye Fat Seck nga xam ne fifi lañ koy wax Adja Chichi euh, doom yaayu Ndeewa moom tamit euh, kii kii maanaam joyeux anniversaire moom tamit doomi Ndar la waaye ki nga xam ni euh, moom mooy Mimi Fall doomi Ndar la doomi Ndar yëpp envoyé na SMS bu ma gis rek dinaa nuyu ana Fifty Amadou Gueye Fifty sama xarit bi moom tamit doomi Ndar la mais doomi Ndar bi nga xam ni duñu ko présenté biir Ndar doomi Ndar bi nga xam ni dafa doon fierté waa Ndar ba pare fier ci dëkk gi nga xam moom la dëkki Ndar et puis lu ngeen ci xamul yéen te ñun ñu xam ko ci mooy mooy doom yaay Youssou jigéen duur kii boo ñëwee ndar ci këram ngay dëkk kii boo ñëwee ndar ci ay appartement am ngay dëkk kii boo ñëwee ndar ndékk añ reer ba ci njogonal moo la koy jox ndox mi ngay raxasoo sax moom Habib Ka moo la koy jox vraiment ki ko def ki ko wax la bëgg te Habib yaa ko def ñun kontaan nañ ci yow bu baax a baax baax dañu lay bàyyi nga nuyonteeg waa Ndar waaye nuyonteeg àdduna la télévision Futur Média mu ngi partout dans le monde maaleykum merci Aba. Mm-hmm. Euh, maa ngi nuyu comme ni nga ko waxee waa Ndar yëpp. Mm-hmm. di nuyu Sénégal di nuyu àdduna yëpp. Mm-hmm. Euh, pour dellu si si li nga wax di leen dalal jàmm d'abord. comme toujours euh, ngeen dal jàmm si festival jazz de Saint-Louis édition deux mille dix-neuf. ah comme ni nga ko waxee ñun tam suñu ànd ak yéen groupe Futurs Médias. amuñu si dara lu ñu métti. Ah, ni leen seen kilifa di suñu xarit Youssou digalee mm-hmm. boolante ñu ak ñun benn su benn boobu ba léegi ah, ay at la mu ngi bëgg a yàgg te mm-hmm. ñu ne lu yàgg dëgg la mm-hmm. ah, ñu ngi ñaan yàlla kóllëre yàlla sàmmal ñi ko ba biir àjjana ah ñun tam dañuy nekk tout tànk nekk sénégalais di jéem si wàll wi ñu nekk gannaaw bu ñu sante suñu ñaari wayjur ba pare ñun jël nañu référence ñu def ko Youssou Ndour parce que si góorgóorlum si farlum si démarré foo xam ne dara nekku fa laay dëgg ñun tam ci loolu la jël référence ba ci wàllu yi ñuy yëngatu euh, ñi xamante ak moom depuis Médina pâtisserie Médine mm. ça c'est les années quatre-vingt bu demaan génn baale ji ak ay xaritam foofu la doon ñëw nekki sa ak ay xaritam. Youssou daan ñëw foofu di fa ndékki. waaw Medina foo fu soirée mosoon ñoom ay mbéy fay ak ñoom ñëpp. ñoo ngi lan lañ ah, daan ndékkee ñoom parce que tam. ay ah, lañ dégg naa de. waaw euh, foofu nag yàlla dafa def benn hmm. euh, na voyagé naa un peu partout. Hmm. mais café au lait defuma publicité. <laughs> joxe. waaw. Euh, na nga voyagé fenn fekk fa guub boobu. ak ah, xet boobu waaw waaw waaw. iñaan baaxul soxor baaxul. ndeysaan dugg naa si it hôtel yu luxe ba tey. ndeysaan mais guub bi am foofu moom nag moo doon xëcc. fu nit ma a toll si Dakar. Mm-hmm. bu fajar jotee sa xel mi dinaa la seen café au lait rek. café au moom lay ndax li am foofu amul woon fenn. amul woon fenn ñoom Youssou bu ñu wayaan ba pare ñëw fa naan seen café au lait <laughs> booba boo gis si Sénégal. Mm-hmm. Euh, boo ko bëggee gis Medina ngay dem. yow Birane Ndour sa papa ndake moo bëggoon café au lait bu <laughs> pâtisserie Médina waa au passage ñu ngi ñu ngi nuyu Birane moom tam di ko ziar di gis euh, barki démb seen waxtaan bi ngeen amal foofu ci King yow ak moom ak Pape Cheikh mooy loo xam ne man bi ma ko seetaanee mhm. sama xol dafa seddu guy parce que yéen itam yéen a ngi dox ay tànk yoo xam ne boole la boole nit ñi ñi ànd ngeen muy exemple boo xam ne dafa rafet wallaay laa si ni moo gisee dama kontaan dellu siwaat si Youssou ñun tam jàppale bu ñuy jàppale. Mhm. il y a de cela quinze jours on am à Malem Hodar. Mhm. très loin de Saint-Louis. Mhm. mais yebal na nit yebal caméra ñu ñëw fekk suñu foofu ci benn ziar bu ñu doon def. moo tax wàcc nañ fa kaamil ñaanal nañ ko fa yàlla lu mu tàmbali. am na solo si nga nekk nii am na solo mais faaw nga wax ñu ci lan ngay yëngu ak euh, waa Ndar naka la demee ak ci li ngay yëngu ak Ndar ndax man maa ngi bëgg a def euh, groupe Futurs Médias trois ans te mosaguma toog ci plateau ba ñu ma fa lekk. c'est pour la première fois moo moo tax gars yi dañ ñaan ma del éviter di lekk ak ci en direct ak yooyu mais comme lii bu amee tey balaa amati yàlla rek a xam yaa ko fi yow moom innové nga groupe Futurs Médias amul restaurant amul añ amul dara ñi fa nekk weeru koor gi bu ñëwee ñi tiit ñun bokk ñu ci ñun yàgg nañoo woor ñun yàgg nañoo woor moo tax abi maa ngi lay sant ci loolu di la ci gërëm bu baax a baax a baax wax ñu yow ci li ngay yëngu ak waa Ndar pour dellu si waat bi ñuy yàlla baaxee ñu dem ba métier bi ñu am luñ ci xam mm-hmm. dañu replier les bagages dellu siwaat fi Ndar ñu ngi jógee Dakar euh, quatre-vingt-seize mais bi ñu fay ñëw di doon affecté woon ci beneen société ñu def fa quatorze ans ñu xool xool ne Sénégal la plupart restaurant yi dox hôtel yi ay ñeneen ñoo yeneen étranger ñu xalaat ne ñun dañu war a jéngu ñu tam gëm suñu bopp li ñuy yàlla wërsëgal ci xam-xam ñu jëm ko def ci suñu askan ci loolu la Euh, monter suñu première pâtisserie associée mu dem un an ça tourne très mal euh, ñu génnaat foofu delluwaat suñu biir kër. Mm. di liggéey di yóbbu ci société yi di liggéey di yóbbu société yu bari ñi def traiteur. Mm. ba yàlla baaxee ñi tam tey daaru salaam bi ñu nekk nii. am na solo mais yombut. am na solo ñu dem def un an ñu tëj ko pendant trois ans mais ñu toog gëm ci biir tëjaay boobu Youssou fekk nañu fa yónnee nañu fa ay ndaw encouragé ñi ñaax ñi. am na solo donc si loolu la ñuy yëngu donc ñun dañuy dañu war a développer suñu dëkk. Mm-hmm. Euh, ku ñëw fii bëgg lekk lu neex lu baax am qualité euh, dalal nañ la si Daaru Salaam. ñu wax ci Ndar ne boo demee Ndar. Euh, doomu réew mi amoo problème mu lekk. amoo problème naan ndax di nga fa am benn restaurant bu mag bu tudd. Daaru Salaam mu ngoog ñu bàyyi la nga nuyu équipe bi nga xam ne ñoom ngay liggéey waaw au passage ñu ngi mm-hmm. mm-hmm. Ka mm-hmm. euh, moom mi nga xam ne moo dirige équipe ba fa nekk euh, madame Ka madame Mangane Ambroise toute l'équipe am na solo parce que man damay génn lu gën a bari ci biti lay dem am na solo ñoom su ma fa nekkee su ma fa nekk ñoo yore liggéey bi Moussa euh, jaaraama ñu ngi nuyu waa Daaru Salaam yëpp ayca Habib ñu <laughs> ñu ngi leen di nuyu leen kontaane bu baax gis nañ seen taxawaay bi nga xam ni moom ngeen am euh, moom ngeen am ci ñun donc euh, on était ak euh, ki nga xam mooy Habib Ka donc ñu ngi koy kontaane bu baax a baax ni mu def noonu la def waaye Cissé yow xamoon ngeen dinaa la yàq ndax bi may ñëw damaa nekk tuuti en mën naa naan kaasu café Cissé nga bañ xamoon ngeen dinaa wax Futurs Médias lekk am fa naan am fa lii maa ko wax maay assumer sama ay responsabilité nañu dem ba tey Youssou moom daa neex a baab bu ma teg tegee li nga xam ni mooy son foqastalu bu yuusu ak ni mu bëggee jazz moom mu woy jazz ma tegaat son bi mooy lu ma waxoon ci lu ñaaw rek yuusu bàyyi na mu sedd le 30 avril foofu ci King Fahd Palace ñu ngi koy waajal entre 25000 VIP 35000 donc dañu dem xooli loolu nga xam ni moom mooy clip foqastalu bu yuusu maa jigéen ma am beneen invité fii ci biir euh, plateau euh, Weekend Start ak ba tey yeneen i ñu dem ay ca tonton mag jefa dem yóbbu keseŋ keseŋ bi ah jafandul de jafandu naa buy gore gi fa jefa jafandul dey jafandu naa guy gu rëy gi nañ fa jéema dem yóbbu gësëm gësëm bi jafandul dey jafandu waaw yoon wu gudd ndeysaan aji faxasalu ah, faxasalu c'était faxasalu ak Youssou ma jigéen wax naa leen euh, bokk na ci album bi nga xam ni mooy l'album international moo génn foofu nga xam ni euh, moom la Youssou génne waaye fi nga xam ni mooy King Fat Palace euh, dina leen fa may ñaari son ba ñett ci album boobu nga xam ni mooy story bu Youssou ma jigéen waaye na ci li nga xam ni mooy Makumba waaye ci li nga xam mooy hello waaye ci Salimata ak yeneen ak yeneen i yoo xam ni mu ngi ci biir donc King Fat soirée VIP King Fat soirée privée waaye King Fat soirée des grands hommes wax naa la ni la entrée bi 25000 dong la VIP 35000 ngeen ñëw ñu enjoy daal di euh, tëj li nga xam ni moom mooy weer yu bala ñu dugg ci weer yu nga xam mooy weeru sell wi 30 euh, day tombeeg jour mardi ngeen ñëw le premier mai xam ngeen ni mooy fête du travail waaye am na yeneen travailleurs yoo xam ni ñu ngi toog sama plateau ma bëgg waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ci li ñuy yëngu waaye def seen présentation ma bàyyi leen ak askan wi ngeen nuyoonte salaamaaleykum. maaleykum salaam Abba maa ngi lay siyaare bu baax. waaw di leen dalal aussi di leen ñaanal ngeen yàlla def jàmm. waaw man Xaadim Tall laa tudd pour ñi ma xamul. Euh, di way ko local bu dëkk ndar bëgg ndar ndar téye ma ndar di dëkk ma ñor lool ma bëgg ndar lool tamit ah léegi nag damay bàyyi xalifa sama ndax scène bi da nga fi am xaadim am xalif macha allah loolu lu rëy la kon bàyyi ma jox sama sama naataangoo mu nuyoo loolu mooy ndar waaw sëriñ Babacar si fi mooy cosaanam waaye xam nañ li fi Seexul Xadim def loolu mooy ndar dëgg la xalifa merci Abba euh, bëgg nañ lool ci teew bi ñu teew ci seen Weekend Star mhm. ngeen ñëw fii ndar mhm. ñu leen di dalal ci festival bi mhm. comme ni ko Xadim waxee on est très content de vous recevoir ici à Saint-Louis ñu ngi leen di kontaan lool mën nañoo xam euh, ci euh, ban xeetu musique ngeen di def ah ñu mën ko waxtaan ak askan wi rek ñu mën a xam lan la Bambara def ak lan la ki xam mooy Khalifa. waaw man musique yëpp laay def. Mm. parce que déjà là on may suma deuxième album. Mm-hmm. muy album boo xam ni c'est plutôt album international. Mm-hmm. bu njëkk bi bi ñu koy def avant ñuy voyager loolu lu yàgg la muy album boo xam ni ñi ko xam amoon na ci titre bu ñëpp xamoon muy bul teela a boot. teel a boot waaw loolu tax na xëy na nit ñi xamewuñu mooy ci wolof. bul teel a boot mooy maanaam xale yi boobu dafay dafay wax ci xale bu jigéen bu teel a ëmb. ok ok waaw ëmb bu teel. Ah. ci loolu lay wax muy morceau boo xam tey jii bon ñëpp xam nañ ma ci. Mm-hmm. waaw ginnaaw gi nag euh, dama defaatoon marqué woon pas en arrière. Mhm. jàngiwaat musique tuuti. waaw waaw ndax looy def ci àdduna xam-xam da ciy baax. waaw laa ñu ngi ci deuxième album bi di ko waaj incha allah xam naa bu yàlla defee ñu wari dinañu indi single bi war a def lancement album bi. incha allah ñu ngi ci di ko liggéey waaw. de jazz euh, te yow bul teel a boor wax nga ko. Mm. wax nga da nga demoon jàngiwaat beneen xeetu musique. Mm-hmm. gis nañ ne yaa ngi yor sa guitare ban xeetu musique moom ngay def. waaw maa ngi def musique acoustique am acoustique nag du musique boo ko déggee ay sonorité la. waaw ci biir sonorité yi mën naa am ay maanaam son yu bari différent mm-hmm. mais qui sonne acoustique. Mm-hmm. donc loolu yëpp xëy na njàng mu ñu mën a bu téye suñu bopp am lu ñu gëstuwaat moo ñu may ñu am xam-xam boobu. waaw tey nag fii nga taxaw nii muy seen bi seen bi moom miin la hmm. ndax joué naa fi ay yooni yooni yoon yow mi man mii di wax ak yow hmm. joué naa fi ak orchestre Baobab hmm. joué naa fi ak Baaba Maal joué naa fi ak Ali Moulaar muy Ali Moulaar mi liggéey ak Youssou Ndour day ténor yoo xam ne ñooñu ku mënta way xamoo li ngay def doo liggéey ndoog ñoom te lool li ma ko may Abba mooy jàng gu ma jàngiwaat musique jéem xool li may def mooy lan parce que dafa ay dafa am identité. Mhm. am ci loolu la xam ne mais maa ngi pare album boo xam ne c'est tamit album bu bu bu bu national. Mhm. boo xam ni mbalax la mais dinañ ko dégg ci yeneen i façon incha allah. ok ci mbalax waaw bu soobee yàlla. ana sama waa ji yow euh, fi ñu toll nii faaw nga wax ñu sa bopp tuuti ñu xam. waaw mënul ñàkk Abba. Mhm. comme ni nga waxee ak euh, sëñ Xaadim. bon ci musique bi ñun on se fixe pas de limite. waaw euh, mun naa ni wol musique la ñuy def. ndax yàlla da lay defal ubbiku. ci mboolem xeetu musique mhm. bu fekkee côté bu nekk am nga ci ubbiku pour pourquoi def ci pour mën a lal le maximum de cible mhm. possible moo tax amuñu ci limite mhm. fépp fu ñu xam ne rek war nañ fa mën a yokk ci musique dañ ciy gëstu world music world fu nekk rek ñu laal fa fu nekk rek ñu laal fa n'empêche nag bokk na ci jamono li ëpp lu ñuy def muy acoustique mais amuñu limite léegi comme yéen ñaar ni ngeen ñëwee nii ngeen toog nii te xam ni fi ñu toll nii am na yeneen invité yoo xam ni ñu ngi ci suuf di ma xaar am na yeneen ay euh, clip yoo xam ni war naa koy jàllale ni ñu toog nii rek ñu def ci benn foo rek bu ndaw ñu xool lan ngeen ma mën a may fi ñu toog nii nii ñu xool ko man lonk naa moo tax jébalu na sama domino sama dominus ana jatu yaa moom sama premier may naa la doctoré domina yóbbu ma fu la neex wax ma lu la neex yaa ki gën ci man ah domina ana jatu sama domina fu la neex ah domina sama domino domino ah domino. ay Pape Cheikh Gueye sama xarit la ma nga d'accord doomi ndar la. mu dem bàyyi la. sukul laaj lu ko waral. of mbay xamul lan moo tax ah adduna. waaye li neex na waay. mooy ka fa li neexul ki fa jaare ah, àdduna waa li neexul aka mën a woore aka mën a loore ah, àdduna aja merci beaucoup Khalifa merci beaucoup nan jox Bamba aja mindaari turxa bi Mbàkke baari e eh, way ni xaali baraaya baari خرجت يوم سبتي زعمي من السر لخدمة المختار في سفر noonu yaa ko génne néegi Mbàkke baari sandarma sanko nang ndar ngay jaar mu jaari ndar muy bëgg a mel ni daar aba sëñ Bamba daal di koy jalax mooy ndakaaru njaag ey njaag ba njaag mooy bala maaram bëggoon naa bëggoon naa ñu yaatal ko waaye temps bee ñu ko mayu su ma ñëwee ndakaaru ñu waxtaan na ba eh kii de bàkk na bàyyi basak baara yow maam idan ak Cheikh Mbacke waa ji demoon Gabon dem wiir wiir ak Mayombe dem Libreville ma bàyyi leen xalifa euh, ak ki xam ne mooy Bamba ngeen wax seen mot de la fin li am na solo lii mooy yëfi ndaanaan ndaanaan naan ko bett rek mu ne lu mu def mu neex en tout cas réew mi euh, ñu ngi leen di xool àdduna leen di bàyyi xel li ngeen def am na solo lool lool lool xalifa lan mooy sa mot de la fin. oui Aba di sant bu baax ci invitation bi ñu am ci Weekend Stars c'est un grand plaisir vraiment di sant sëñ Xaadim bi nga xamante ni suñu grand frère la. jiitu ñu ci aar bi ba aussi tamit di jàppale ak ñëpp ñi nga xamante ñoo nekk ndar di ñu jàppale. Euh, ko mel ni sëñ Massamba Gueye ñu ngi koy mm-hmm. gërëm. Mm-hmm. Euh, Faratal bi nga xamante ne moom nga léegi. Mm-hmm. ñu ay grands yoo xamante ci musique bi vraiment. ñu ngi ñuy jàppale di nuyu suñu famille suñu doom yi Mambousa Soxna Faati Ndiok ak tout le monde sant waa ndar di leen gërëm. ñoom Malal Junior Diagne fii lañ dëkk <laughs> Malal Junior mooy doomi suñu maam. waaw euh, jërëjëf Aba Bougane Gueye Dany waaw Birahim Gueye maam góor Assa Demba ak Talibé dëgg la moom la maamam des ca septième gaar fii la dëkk laa ilaaha illallaah aca xaadim waaw ubbi nga buntu bu rëy waaye du ma ci dugg damay xar <laughs> damay nuyu sama xarit bi muy xalifa kii ku mhm. baax la mhm. waaw tu du du du di ko am solo waay ñu mhm. koy ñaanal yàlla na yoonam leer waaw may gërëm waa ndar yëpp nag ndax tamit boo gisee man abaa ndakaaru mi ne guñ ma fa ndara ma jël téel ma boppam parce que franchement ndar dafay dëkk boo xam day dëkku aar te it ma limal lañu nag abaa ndakaaru ñafa ne di ko toj ñëpp ndar la ñu dëkk hmm. waaw waaw ba ci njiitu réew mi ndar gi la jàngee ndar mooy buntu Sénégal donc nag chance la nga nekk fii jàng fii xam-xamu musique di ko def ba pare ñu téye la da ngay toog ba ñu yewi la waaye abaa maa ngi ñëw bu soobee yàlla incha allah waaw ni di nuyu sama xarit Amadou Niang muy mii ku baax koo xam ni vraiment kuy sonn ci samay mbir la hmm. waaw vraiment di nuyu waa yëpp di nuyu sama jabar xam naa ni may seetaan. maa ngi koy kontaanee daf waaw jërëjëf. maa ngi koy kontaanee merci beaucoup jërëjëf. li ngeen ma gis ma takk ko ci ay lunettes am naa ci plus de 155 paires yoo xam ni dama koy takk heure bu ma xëyee ndax maay ambassadeur euh, marque bi nga xam ni mooy lunetterie euh, Kër Rasoul waaw kay dafa mel ni dafa am ku weddi ci ginnaaw. loolu neexee mën naa wàññi cent cinquante euh, daal di koy def vingt cinq rek vingt cinq paires ayca mooy lu ne turu ah, euh, fi nga xam mooy Kër Rasoul euh, booy yi nga xam ne ñoo fa nekk day ay xale yu am jom mën ngeen cee commandé fu ngeen toll 77 la 422 ngeen def 06 20 yéen tamit ngeen am ci seen lunette ay lunettes yu doy waar am na genre design bu nekk dem leen ci ñoom seeni ak xale yi nga xam ni ñoom ñoo fa nekk yëpp yëpp yëpp nañu dem ci Viviane Viviane mooy Judith Dieng ah chéri ah, sama xarit ba Amdi Moustapha moom way na pas le choix ñu dem xooli clip ba te ñëwaat léegi kontaane naa sama invité yi ma jël beneen invité ay ca clip Viviane Je regarde chaque minute, allongé sur le lit, je ne peux pas fermer l'œil. Est-ce qu'il est tout seul ou avec une fille Je me sens si seule, j'étouffe, à force ça m'épuise. Cette fois-ci ça suffit, oh, ce soir on va pas se louper. Tu m'as prise pour une idiote, aucun respect pour notre couple. ce soir, on va pas se louper. Tu m'as prise pour une idiote. Bye, lingay def, lingay def, lingay def, lingay def, lingay def. Bye, lingay def, lingay def, lingay def, lingay def, lingay def. Bye, lingay def. Aïe, maa ngi nuyu Abdou Guité, ah, maa ngi nuyu Malick ah, Diabou Seck. mënoo ñëw ba ndar te eh, nuyonte woo ak ñoom waaye mënoo ñëw ba ndar te doo ñëw eh, te doo jël waxtaan ak ndaanaan li xam ni moom moo dëkk biir ndar Mbaye Ndiaye Tilala dootuñu ko présenté Mbaye maa ngi lay siyaar. la siyaar sama waa ji gëj nañ gisee. waaw gëj nañu gisee ma ndar ba ñëw ndar la ñu gisee te loolu dara rafetu ci. mais Aba ñëw naa Dakar ñu jàkkaarloo maag yow. wax nga dëgg maa fàtte. Ah, danga ko fàtte. maa fàtte dëxin ba. mais ci loo ne. <laughs> sant Serigne Touba. maa ngi lay ziar. waaw Aba maa ngi delloo ziar bu baax. Mhm. Euh, di sant yàlla di jënd ci sangam bu tedd ba Seydina Mohamed di sant sumay waajur di nuyu Sénégal yëpp di ñaan yàlla na jàmm yàgg fii ci Sénégal waaye taxaw fii ci place su bi fi nga xamante ni fi la bàyyi Serigne Saliou Mbacké ak Serigne fàll julli woon ñaari rakk kon bu nu fi ñëwee war nanu nuyu sëñ bi mm-hmm. balaay sabri Sëriñ Mbàkke Maram ewa Sëriñ Cerno Birahim ndam la ca Daaru Mam Bamba baax mm. bàyyi Sëriñ Saali waay Mbàkke mm. bàyyi Alaaji Fallo mooy bàyyi Sëriñ Karim Mbàkke borom Makaarimal Axlaaq ana jatu bàyyi Sëriñ Abdou mm. Jiile sëriñ Fallo yi bàyyi sëriñ Abdourahman Bakke sama yongu bala ay jooyi yeah. waa Petit Ndoye ma ma ngay jooy Petit sama caméraman yi so yeah. ay ah, nu laaj la fan nga nekkoon aba maa ngi fii ndar yaa ngi ci lan <laughs> maa ngi maa ngi ndar xam nga euh, bu ñu sante yàlla euh, nit dafay am base mm-hmm. Euh, nit dafa am wéeruwaay. Mm-hmm. te man Mbaye Ndiaye Tilala la defe naa ni ndar mooy suma base. Mm-hmm. Euh, ma sant yàlla nag bu baax a baax mu fekk ma fi xam nga musique day def ci yow ñaar da koy dunde wala mu dunde la. Mm-hmm. Euh, may sant yàlla ba maa ngi dunde musique bu baax a baax ay ci am na solo tey jii am na benn son boo xam ne amoon nga ko mu yëngaloon réew mi ba réew yëpp bëgg ko am na ñoo xam ne du ñu xàmmee sa kanam mais boo woyee son bi dinañu xam ne kii moo ko woyoon est-ce que mën nga ñu naa la ko may ayca for waay joo wuli gëj naa ko yoo yee jam farima wuli jaay ba ndongolo guddi naa loolu bokk na ci sama sama œuvre bu ma Sénégal xàmmee mhm. mais des na beneen bañ waaw ataay ji ma jël def ci suukor ak wargaak pasteek naanaak mantak lu ne ah xiimal yi kañ fan aba toog nan mag yow xiim ataaya nan ko teg ci ndox loolu fu mu <laughs> amee Dakar Dakar dëgg la fun koy waxtaane ci Ndar waaw dëgg la dëgg la <laughs> ci TFM Candela Ndiaye boo ngay wax ku bala meñ sa loxo ca kaw am na solo ku ñëñu bala meñ sa sa loxo ca kaw mbaarik faya may magam faya may yaama Seyni Thiam yat ma daaru Seyni Thiam bugguma daaru waxtu bi moo nu xooj fi ñu toll ni Mbaye Ndiaye Talla lan mooy say projet ana ay projet mais mais Aba doo ma nga yow nga ñëw ndar waaw jàkkaarloog ndar damaa gaañu mbay nja bul gaañu damaa gaañu xam nga lu tax lu la gaañ waxtu wee ma xoj waaye fi ñu toll nii xam nga ni yoon woo gis mu am allé mhm. am na retour yow da ngay ñëw euh, fee ca Ndakaaru waaw ñu yaatal ba mu gën a yaatu aba loolu laa bëgg mhm. ñaan la ko mhm. ñu jàkkaarloo xam nga dama woyoon Youssou Ndour waaw ni ko Ndouroo Waly Mbergane alaaji ilimaanay sa baay ajaratu ndey soxnaay soogi dikkeeg biram dikki samba amadou ndey la mi ni jëm sambay sini binta baalu doro beng wuy taawoo yi taawoo wita o oh, oh, oh, yusu ita abasa bala bala kin cakin ah waaw da <laughs> dooma dimbali nga bàyyi ko foofu rek ñu daal di ko <laughs> bàyyi naa ko ñu daal di koy téye rek ba yegg Ndakaaru <laughs> am na booy bu dëkk fii Ndar way na Kouthia waaye way na Dakar na door paax Ada Coly Ada Coly ah. kooku tamit moom maan koy xar ca Ndakaaru ba mu fekk ma fa way na Dakar na door plus way na ma way na Kouthia sama rakk la kenn du ma Abba bëggoon naa def morceau playback bi nga xamante moom laa way honorable député Adja Aminata Gueye Absa Bintou Mody. Mhm. Fayad ma Penda Seck Dieyla Diop mm. madame Birane. mais nag xam nga mais temps bi moo nu xoj. Mhm. xam nga Mbaye Ndiaye waaw kon mën naa la ko delloowe njukkal yow te dem. da nga ma koy dénk rek fi ñu toll nii ma téel la ko. dama la koy dénk. Sénégal. Mhm. dama leen di la le 29. ca Mix Club. ci lu bees tàq loo xamante ni moom laa lay dénk tàggoog yow. ah gi nekk ci yow nekk ci man amul leneen. jox ma sa xol bi no baby daal tànkitu paa yóot laay wër di wër bëggu di jot ma daloo luy naa wa neexa sànni chéri boy yaay sama cili ceele ma chéri ñëwul ñu ànd naa yaay baby maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax et c'était un plaisir ma bokk ak yow plateau sama nijaay Lamine Samb nag mhm. moo fi ñëw bërki demb mhm. ma jàkkaarloog moom ci làmb ci mhm. mu tekki montre ya yoroon takkal ma ma ne ko lii lu tax mun ma nijaay bu dee takk ñaari mont jarbaat day takk ñaar du ma ne guleet ci moom euh, moom ab baaxkat la lu baax rek lay def yéen a ngi may am fii clip yu Youssou Ndour laa leen di may xam nga damaa sopp mënumaa toog benn place bu nu ñëwaatee feneen ngeen may fekk may def leneen ñu dem xooli clip bi te ñëwaat may ma tontom ak clip bu la neex ci Youssou bu la neexee Habib Faye bu la neexee li nga xam mooy sapeur pompier may ma lu la neex ci Youssou bu nu ñëwaatee ci biir plateau bi du ngeen ma fekk fii ci leneen ngeen may fekk may def leneen ne ci lu ma neex ayca clip <laughs> Bonne nouvelle pour les mélomanes, Youssou Ndour, la star planétaire, en soirée au King Fat Palace. Ce mardi avril, le King Fat Palace déroule le tapis rouge pour Youssou Youssou Ndour di leen woo ci soirée VIP avec Youssou et les Super Étoiles après son spectacle en France Youssou Ndour est de retour à Dakar pour le 30 avril le 30 avril au King Fat Palace entrée 25 000 VIP ou le ou appelez au 33 869 91 le avril mardi veille fête du travail. waaye ma ngay am te King Fahd ak Youssouma Jigéen Ndour accompagné de son super étoile. ci super étoile. te dana na ma mbalax Youssou na ma way kon nag lii tuq su bënn gu sànge réer la. ñu ne entrée vingt cinq mille francs VIP trente cinq mille et li neex na de. pare leen le 30 avril ak Youssouma Jigéen Ndour accompagné de son super étoile ci Youssouma Jigéen Ndour. yenn saay nga am bànneex bànneex wëlbatiku doon naqar yenn saay nga ci benn bis mën nga ci am si benn bis mën nga ci ñàkk waaye saa yoo wootee wallu bëgg nga ñu dégg la yéen a ngi may gis nii fi ñu toll nii maa ngi nekk ci sama voiture de collection war départ léegi génn ndar daal di ñëw foofu nga xam ni moom mooy ca Ndakaaru ku yàkkamti nag baye boo euh, bu dee mënoo maa xaar nga dem noonu laa koy dawalee nànk-nànk ba daal di yegg si foofu nga xam ni moom mooy ca Ndakaaru bu ñu nee tey démb moo tax oto yii moo daan daw demb voiture de collection yi mu ngi nii lii yëpp ci biir festival bi loolu nga xam ne mooy festival de jazz ngeen koy am maa ngi ciy yéeg léegi ñëw yéen waa Ndakaaru xaar leen ma micro bi waari wala wooyee maa ko yor te incha allah bu ma ñëwul waale du way donc merci beaucoup à toute l' équipe équipe nga xam ne ñoom la àndoon Amdi Moustapha l'homme de Colobane chéri Kenza doom yaay Poulo Baye Baye Niass merci beaucoup Amdi yaa ma tere def tànku neen waaye booy yéen nga xam ni yéenay lunetteer yi Kër Rasoul yéen tamit merci encore une fois et merci à toute l' équipe euh, du groupe Futur Média Cissé merci beaucoup merci à mes man bokk na ci off bokk na ci petit waaye bokk na ci Mor Xarma merci beaucoup sama gaañi réalisation bi tonton mag anam yaa ñëwul tey waaw kay na ci samay le son eh, sumaaree ana Papa la jërë ngeen jëf ana kii jatu yéen tamit ñëpp ñëpp ah équipe bi yëpp yëpp waa SSP ku lim jum ku lim jum équipe bi yëpp maa ngi leen di kontaane di leen nuyu bu baax a baax a baax di wax ni les écoles ENCO ENCO bu Dakar ak ENCO bi nga xam ni moom mooy inko Waka dañuy def bu subaa seen randonnée terrestre 8h30 lañ koy commencé foofu ca Enco Waka bi nga xam moo ne Almadi daal di koy jeexalee ca monument de la renaissance école boobu nag mani dañu def li nga xam ni mooy thème bi euh, lii waay waaye kii lañ def lii kii thème bi waaye fàtte naa thème bi daal loolu bu subaa bu subaa la rendoteresi bi na ngeen def booy yéen a ngi am jàmm maa ngi dawaat waay damay dugg fi nga xam ne mooy Ndakaaru waajal suma bopp bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf xam ngeen la laay tëjee li nga xam ni moom mooy waa waa eh du xam nga lu may tëjee li nga xam ni moom mooy émission bi <laughs> xale yaag may xool naan avant lan la ko nar a tëjee xam nga lu ma koy tëjee Taxi Love ak Wally Ballago Seck c'est son anniversaire acce boy son eh waa Taxi Love taxi taxi ndar ngeen jërë ngeen jëf c'était avant no stress et c'était week-end stade jaa ngeen eh, sur kii euh, la TFM télévision leader of assurance beeg carte grise bi. ayca maa ngi daw nga jox ma certificat de mariage yow sa wàllu bopp murit nga wala tijaan. Baay Faal biir. ayca jox ma sa carte de membre mu gaaw da ngay sikkar wala dooy sikkar. damay sikkar kay damay sikkar. waaw ayca après nga yuuxu sa voix ba dégg ba xam dana jógam du jóg rapidement na gaaw na gaaw na gaaw. daayira. carte daayira assurance. ayca jox ma sa livret de famille. waaye euh, sa waay nag gis nga xoolal. lépp rek pour nga wut loo amul sa waay dara am nga fottal. je suis un agent j'ai droit de demander ce que je veux. lan moo ma wóor ni sénégalais nga wala guinéen wala malien. jox ma seen retrait de naissance tout de suite. allez robo robo jox ma kayit. li ma laaj yëpp jox naa la ko. Eh. sama doom sama loom maa ngi dem si yoon sama xol bi xol bi xol bi xol bi lu ma sori sori sori sori sori teewul ma jege ci kër doon góor war di këkkëree ci taxi bi laa départ léeg-léeg ñu woo ma urgence ne ma gaz bi jeex na ci taxi bi laa